combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha moo dajeek ñoom fi mu ko teg bëri na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mu sama kopp xool de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man di leen jaajëfalaat bu baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV ah, di kontaan ci yéen bu baax dellusiwaat naa ak sama émission Leewtoo ak mbër Leewtoo ak mbër nag neenaan leen champion bu neen la jëm fekk ko fa mu ne ci biir këram ci biir koñam salle musculation fépp daal toog waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb waaye lépp lu soxol mbër bi la mu nekkoon la mu nekki ak la muy nekki ëllëg waaye tey nag damaa ñëw fii ci Grand Médine fekk fi beneen daanaan beneen champion ko xamante ne boo ko tuddee ci làmb xam ne kii xale bu fi am place la koo xamante ni soo ko tuddee kenn na cim waaye xale boobu nag mooy Ndongo Lo dama koy nuyu rek bàyyi ko ñu xuus ak moom Ndongo Lo maa ngi lay nuyu. waaw bisimilah ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di nuyu waa Leewtoo TV di nuyu waa Grand Mine. bi. di nuyu waa Grand Mine encore di nuyu waa Grand Mine di nuyu waa Parcelles amoo 26. surtout mhm. di nuyu waa Touba waa Thiès. Mhm. ma bépp mu nekk rek maa lay nuyu. di nuyu axul làmb yëpp daal di nuyu suma kii di Idrissa xam-xam. olof ñaar dafa ne wax waxaat waaye wax waxaat nag du bëri wax ba tax na balaa ñuy xuus ak yow rek Ndongo Lo dugg nga ci laam ñëpp xam nañ la dañoo bëgg nga dellusiwaat ci sa carrière rek nga waxoon ci tuuti. waa Ndongo Lo dafa ni benn xale rek boo xam ne mu ngi dugg ci làmb 2013 la dugg ci làmb. 2013 mm-hmm. 2021 boo xoolee 9 ans lay mot. Mm-hmm. am naa si 17 combats. xam moom mm-hmm. 6 défaites. loolu sant yàlla la. ma nekk tamit xale boo xam ne damay doomu Grand Médine mm-hmm. juddoo fi yaroo fi màggee fi ba muy débuté ñu bëri ñu yaakaar motu ma mbër motu ma mbër motu ma mbër mm-hmm. mais yàlla moom maanaam bu nee waaw rek mm-hmm. ñëpp naan waaw daal loolu yàlla bu nee waaw yëpp ñëpp léppay changé ah, tax na nga am onze combats onze victoires mu nekk six défaites champion moo koy def ci sa onze combats yooyu ban combat moo la gën a neex ci victoire yooyu noonu yëpp waaw victoire yi victoire bi daan digal moom gën a neex sama victoire yi. lan moo tax. parce que boobu mu ngi posé cent quinze kilos. Mm. boobu maay posé quatre vingt dix kilos. Mm. xam ma jël ko si diir bu gàtt. Mm-hmm. ñu yaakaar ne ndigal dafa ñëw jaa sama kaw jàll. Mm-hmm. yàlla si toral ma si même ndam. Mm-hmm. combat boobu daal bokk na ndam yu ma gën a neex wax dëgg yàlla. boo amee ndam bu la gën a neex di nga am defet bu la gën a naqari ban defet moo la gën a naqari. sama combat ak Pambaay. lan moo tax sama xarit. waaw parce dafa dafa nekk affaire bu nga xamante ji maanaam ñaari ndab mooy dugg. Mm-hmm. waaye benn mooy génn. Mm-hmm. comme baaw ak lu ma ko entraîné lépp lépp lépp lépp lépp lépp ak coono ji discussion yi xam nga problème yi ci am. Mm-hmm. xam nga defe naa na ma. bett moon mais métti na ma quoi. bett na la mais métti na la lu am lu la neex di nga ci sa carrière nongu loolu lan ban nga ci am loo xamante ni tey jii bu fekkoon à refaire la yow dootoo ko defaat. lu may regretté sama carrière. Mm-hmm. lu ma yéex a dem écrit Ibrahima Ndiaye. Mm-hmm. wala regretté sama carrière meru dara. xaw ma da ngaa lekk sama lan ci dama xaa naroon mujjee ko dama ko jiite nga changé écurie jóge écurie a tax nga jóge sa écurie dem écurie Pape Birame dafa nekk nit koo xam ne maanaam ni ku yàlla baaxal la. Mm-hmm. te nekkul tàggat bu ñuy tàggat kese dañuy delloo seen xel tout temps si yàlla. xam nga doon na ci xam-xam. dem si père pour yokk ci xam-xam. Mhm. sa relation ak Pape Birahim. waaw Birahim sama sama maam la du sama père sama maam la sama xam-xam la waaw yàlla na yàlla guddal ay fanam rek waaw ñu ngi ci kawam daal wax dëgg yàlla. di ko ñaanal gudd fan gu gudd ah mon père xaritu jili borom waa borom jàngat dama koy nuyu bu baax ko suñu papa la nga nekk père Birahim di préparer sa combat laata combat bi sax. ci regret bi ci regret bi laa ñëw ba léegi ah ñiy for ci ay wéewu béy di dégg nonguloo par ci nonguloo par ça lii nonguloo laa rumeur yi di am nan nga koy dundee en tant que mbër. rumeur yan yi bari na tamit nonguloo bu ma xus bari na nan ngay dundee loolu. xam nga rumeur moom nekkul ko fi njëkkee nekkul ñoo ko fi mujjee. Mhm. amaana gën gi mbindeef mu ñëppoon rumeur foofu ama te maanaam mooy gën gi mbindeef daal ñu dañuy topp si ay si ay tànkam rek. Mhm. jéem a mel ni moom. mun ñoo mel ni moom nag mais ni ñuy jéem mel ni moom rumeur yàgg na si àdduna yow mi sax yaa dégg ay rumeur mhm. te yaa ngi koy maîtriser yàgg muñ mhm. loolu la demee nag mhm. dañ koy dégg rek ko bàyyi ko suñu xam ne ku nekk ci kanam rek moom la ñuy wax ku nekk ci ginnaaw jamais duñ la wax waaye ca noonu nag nga nekk mbër ku ne xam ne làmb dafa métti des fois nga toog saison bi mu neex saison bi bëri du neex lan ngay def à part làmb maanaam ñun ay doomu Grand Médine lañ xam nga te doomu Grand Médine même mu bëriwul sax. Mhm. waa doomu Grand Médine ñoo koy jàppale. Mhm. ñun ñun maanaam même mu ñu bëriwul sax. Mhm. na namuñu namuñu lu bëri daal wax dëgg yàlla parce que gars yi ñu ngi jàppale bu baax a baax. lu ñu am lu ñu amul jàppale nag nekkul xaalis xaalis moo gën tuuti si jàppale doomu aadama jàppale doomu aadama nga ñëw di ko wétali sax jàppale la. xaalis day jeex. lu may wax rek mun nga taal saako xaalis sa biir nekk kenn mun na ko bañ a xam. Mhm. mais benn doomu aadama boo ko taalee ñëpp xam ko. kon moo gën a for alal daal. Mhm. loolu la. nit moo gën a for alal ba tax na relation yan relation nga am ak yeneen mbër yi. parcelle war a gaaw mbër yëpp. balaa ñuy parcelle mais dañuy wax mbër yëpp général soo ko ñëw ci parcelle. mbër yëpp samay xarit lañu. Mhm. waaw képp ku takk ngeen bu di bëri rek. suma xarit nga ñëpp duñ a xarit de des fois nga dajeeg mbër defante moom ba mu saf kon duñ duñ xarit loolu affaire góor rek pesa yi pesa yi ñi nga nekkal sax say xarit sax pesa yi nga xeex ak ñoom jiboo mm, après mm. <laughs> Mm. góor yàlla biir parcelle bi di Grand Médine relation nga am fa nekk waaw parcelle ak Grand Médine amaana benn la tali bi nga gis ne moo ñu séparé mm-hmm. kon benn la te maag tafa waxtaan nañ pour ñu dindi tali bi demee nag <laughs> yàgg Tapha Mbeur ana Pape Mor Lo. Pape États-Unis. Mm-hmm. mu ngi ci lan. Ah, mu ngi ci mu liggéey mu ngi ci làmb. mu ngi ci liggéey mu ngi ci làmb yow moom yaa ngi ci biir làmb nga dem jël beneen champion beneen daanaan koo xamante ni dafa tot lu simple. Mm-hmm. ah di Cheikh Tidiane Niang naka ngay préparer combat boobu. combat boobu noonu moom dafa nekk combat bi nga xam ne du mu nekk mais combat la si biir combat yi. moom combat Birame la. Mhm. combat bi combat Birame Ndiaye la du sama combat. Mhm. naa tax ma ne combat am la. lan moo tax mu nekk combat am première fois ngénte ngénte bi lay nekk wala moom moo jël combat bi pour wane li def ci yow. moom moo jël combat bi au sérieux man tam ma ma maanaam ma jàppale ko si. Mhm. parce que bu jëloon bu jëlee combat bi au sérieux tamit jàppale ma ko si tamit du dem. mais dafa jël combat bi au sérieux man tam ma di ko si jàppale. Mhm. parce que ndimbal na see fekk loxo borom xaw mhm. ndimbal na ci fekk loxo ba tax seen premier face to face ba ñu doon présentation lañ def. Ndongo Lo ñëw bàqu tàngal stade sa diggante Cheikh Tidiane ñaar lan la da ngeen a xiifante yéen ñaar wala ku nekk dafa yaaxamtee bëri sa morom wala ngaa namm yëngal stade bi. xam ko gars yi di bàqalee maa ko mhm. man maa ko te xamu mais bu bis baa dina xam ne ñaar yëpp bu si ñëw day perte. Sëriñ Niang Niang mën na bëre am na mystique. mystique moom mooy hmm, loolu mbiri suñu borom la. waaw parce que fii ku dul mbër sax am na mystique. Hmm, man aw ma daal maa ni ah, yaay si ñaanlu de di ñaan yàlla yokkute. ak ah, képp lépp lu waay def rek wane si mystique. Hmm. waaw mystique kay ñu jël tegu ne moo wóor woo dañuy dem techniquement parlant préparation combat bi nous sommes mën naa ne sax à 10 ba 15 mhm. ay dérangement ngay bi toog loolu la quoi surtout mental bi. Mhm. saa wàllu mental lañ nekk daal. parce que mu nga entraîné physiquement moralement mhm. mais. diggante diggante làmb bu ndaw maam diggante 10 jours rek. Mhm. mu ngi ko si pétard lépp si xel. lan mooy waral loolu. waaw ah, loolu maanaam cerveau bu bañ toog la. Mhm. cerveau day toog caméraman bi bu doon yëngatu image du leer. Mhm. mais da ba mu toog a loolu ci pression bi la mbër bi teg la wala pression bi la fan si teg la wala pression bi nga teg sa bopp la. non man man nag maay mbër bu nga xam ne. muy supporter muy amateur. muy promoteur amul kenn ku mun teg pression. yàgg naa bëre. nekkul léegi laa commencé bëre. Mhm. te naan mu nekk ànd nag moom. Mhm. am moom te rawatina Père Birahim Ndiaye. Mhm. kenn du nekk ak moom daa am leen looy xalaat. billaahi wallaahi taalaa surtout nag surtout nag nga dëkk nekk Grand Médine. waroo xalaat sax lu bëri. billaahi wallaahi parce que xalaat ñàkk la ñuy wax après mu jeex. xalaat ñàkk ba tax na kuy préparer combat di nga soxla jàppale ñu dégg sa kàddu nga ne Grand Médine jàppale leen seen mbër Grand Médine jàppale moo waral kàddu yooyu ba pare nga waa fii ku mu neex taxaw woo sa dëkk. man woo ma Pikine woo ma ginnaaw raay woo ma yëmbal man Grand Médine laa woo. parce que fi laa yeewoo. Grand jàppale seen doom du nga ko taasiri wax. seen doom la ñu jàppale seen doom. billaahi question ndax man bi nga ko bi nga ko waxee rek automatiquement li ma njëkk a traversé sama esprit ne. kii waa est waa grand grand grand Médine bàyyiwuñu ko de côté wala dafa gis ne dafa manque jàppale ba tax mu wax loolu moo taxoon ma sampalaaj boobu noonu. xam nga gis sax ay mbir yu fay ko ay centaine de million di woote jàppale ba léegi. Mhm. nga gis mbër yi fay ko ay centaine de millions jàppale jàppale ma loolu fële nga fekk fële nga koy bàyyi mbër yi ko jàppale jàppale jàppale jàppale doyul. Mhm. ba sama rakk ju mbër bëgg démb ceer lu ñu koy jàppale jàppale jàppale doyul. Mhm. jàppale bi daa war di gën a yokk chaque jour. moo tax tout le temps maa leen jàppale leen dafa di gën a yokk tout temps. jàppale leen seen doom ci combat la jëm combat bu mag diggante bi nga xam mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye numéro 2 nag vraiment Seti Diagne ñaa nag ku ko xam xam ne champion la <laughs> ku ko xam xam ne champion la mu nekk mbër bu technique techniquement est-ce que yow yaa ngi pare ci plan yëpp jour ji. xam nga Mor Faram nam si yàlla si. benn ni ko laaj. na ko dañ ñëw dàq bëri si làmb mu ne cinq yi bëri dàq bëri si làmb ji ndongoloo si la bokk loolu sant yàlla la ñu dàq bëri si làmb ji man mii si laa bokk loolu sant yàlla la muñ ci dëgg maa ci ay caaxaan loolu la quoi le 3 juillet nga war a wonewaat sa bopp ci wàllu mobilisation ndax buñ mbër ginnaaw ga la xool am mbër yoo xam ne fi ñu toll tey jii ginnaaw moo leen ko may est que yaa ngi mobiliser man loolu du ci wax parce que yaa ngi nii gaa yaa nii waaw waaw noonu la fa demee nag noonu la fa demee nag waaw waaye si moom du nga ko wax de quoi yaa ngi nii noonu demee nag. loolu fa demee la ñu dem na ko meññu lii. barke rasulaay. kon leer na. Ah. loolu dafa lee beneen phénomène dafa am aussi ci làmb mbëri bu ñu tasee lu ma ne sax mbëri ñoo koy def mais seeni supporter fukk bi ñuy demee dañuy jàpp ne lu am ci biir géew gi moo war am ci biti est que yaa ngi sensibiliser supporter yi par rapport ak loolu. violence bi am grand mine moom wax dëgg yàlla képp ku leen xam. Mm-hmm. xam ne sport la ñuy dund. ñu ngi dimanche passé bañ bëree pare dañoo wàcc nang dem ñibbi. du ñu coow du ñu xool dara nañ coow nag. daa fa xale moo ñu jàppoon. mais léegi màgg nañu. baa nañ xeex. léegi non violence xanaa gisoo lu ci ginnaaw non violence rek loolu la ñuy dund quoi. non violence balaa may tëj sama émission nag dafa am combat bu mag bon ah, contre Sa Thiès ak Moussa Ndoye nga nekk xale nekk ci làmb ji nga xam ne gisee affiche boobu noonu. waaw Sa Thiès Moussa Ndoye dafay fàttaliku Sa Thiès Malick Niang. Mm-hmm. dafay que combat boobu bu erreur bu Sa Thiès defoon si moom Malick Niang. Mm-hmm. ma si Boy Niang de si Malick Niang. si Malick mm-hmm. dafa nekkoon xale bi nga xamante ji maanaam du mën sax xale mag bi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ ko xel. mais dafa jékki-jékki rek mel comme si dafa bàyyi woon lu mu nekkoon. comprendre nga lamb neex la tolloowuñ doole. Mhm. tolloowuñ bëre mais ñoo tolloo gabari. ci bagaar boo doon joxe favori kan mooy favori. Oh, ci bagaar. ñun ñoom ñaar kenn ci favori mais Moussa Ndoye moo xaw a tane. Moussa Ndoye lu tax nga wax loolu. parce que lu mu wane ci làmb ji moo xaw a tane mais mhm. xaw a tane. moo xaw a tane. Mhm. bu Leewtoo TV taxawala ah, Leewtoo production di dox ci diggante Boy Niang le fils de De Gaulle Tapha mm-hmm. Tine le géant du Baol noo gisee combat boobu. waaw ah, combat boobu combat puncheur la. Mm-hmm. comme combat boxe la quoi parce que combat bi ñu am xeexkat lañ maam bëri bi nekkul lañ privilège yu bëri. Mm-hmm. xeex bi lañ privilège mais pied gauche ak pied droite. loolu la quoi moo tax combat bi di xaw a salté tuuti. ñooñu loolu lañ loolu 8 août la waaye la ngay dina garaaw de. le 3 dina gën a trop bi ko tëgg sama xaritu bopp di ko nuyu ah. bëree bëri ma duma ko daan ko. bu dee mbapat la ma daan ko. maintenant yëpp amuñu sens. ko xam-xam ne mbëru mbapat la mbëru suuf la yow da nga fekk ci li mu mëne wala da koy yóbbu ci léeg-léeg yow li nga mëne. ñaanu ma ko ñaanu ma ko dara. lu ma moom ma dama koy jël si par la force. lan ngay dig supporter yi. supporter lu mu dig mooy maanaam sangu ba set rek. solo naas comme d'habitude ñoo jàpp bëre daan ñibbi xalaat ñàkk la abar day jeex. yow ñeme nga ñeme nga adversaire nu mu demee noonu. ah doomu grand mi nu muy ragal tamit. doomu grand mi nu muy ragal. bi dafa ñeme adversaire man je comprends pas. xamuma fan la teg ma man fii si biir damay ñëw wala da koy dugg di raam ba ci ay tànk man je comprends pas la affaire bi lan la. da nga ndaw lay wax loolu xale ndaw la grand tapé di dugg fi. billaahi man amul ma tiit si làmb. billaahi wallaahi même bu dul làmb sax. sa moroom góor yàbb ma. na. Mansour doo ma Ndongo Lo a ah? mm. damay kontaan si yow bu baax loolu moo nekkoon ah. Mm. Ndongo Lo Leewtoo ak lan ngay tàggatoo bi. waaye di tàggatoo yi maanaam moom maanaam samay grand frère. Mm-hmm. sumay nijaay. Mm-hmm. mooy ñu jàppale. xam nga waa grand mine dootu ma leen woo parce que ñëw nañ. Mm-hmm. ñëw nañ quoi. dootu ma leen woo. grand frère grand mine laay wax nag. grand frère grand mine yi jàppale booy xale si dara. nañu ñu jàppale grand frère grand mine nañu jàppale booy yi ndax xale moo yor nañu ñu jàppale bu baax a baax a baax suñu moyen bopp la ñuy demee chaque jour. nañu bàyyi xel quoi nañu bàyyi xel. nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne ñun si gox bi lañ bokk. di woo sama grand Daouda Mbaw mu nekk laaj kenn jox ko dërëm waa banlieue treize ñoo génnee seen xaalis fas yéene si traite waaye wala mu jël rek dinañ xam ne lépp ñun ñaanuñu kenn ñaanuñu kenn ñun ñoo waa banlieue treize lambu ceer noonu la demee amuñu kenn ku ñu dem na ko meññu lii ñun ñoo koy lijjanti suñu biir te bu fekkee un million la dinañ ko teg si table bi seeti daan ñaa la ngay rey bu SAD la ngay damm barki rasulilah waaw di woo di woo sama grand Daouda Mba bu baax a baax baax a baax a baax di woo grand Dev di woo grand Dev bu nekk Canada ñu jàppale génnoon ma lii waaw ñu ñor na ma trop. xam nga ñoo grand Dev si combat bi. Euh, gars yi may na ko mu tàggoo après ngeen ngeen ngeen ngeen kii ah waaw d' accord may may na ko mu tàggoo rek waaw d' accord. ñoo grand Dev borom Canada moom amoo fayam borom làmb diaspora xam nga di sama père père ba. bu Parcelles maa ngi koy woo bu baax a baax bépp biram ñungu Modou sama idole sama xarit sama nijaay combat bi soxal naa si bu baax a baax a baax baax Modou bi soxal naa si Ibou Laye combat bi soxal naa si di woo si woo Franc si woo Goro Sock si woo si woo Youssoufa bu baax a baax baax baax alhamdulilah pardon Youssoufa Niang bu baax a baax a baax di woote grand bu nga xam te dafa jàppale te bëgguma turu turam kooku yàlla na ko yàlla fay. amiin yàlla yàlla ma am fay yàlla na ko yàlla fay billaahi. amiin daf may jàppale te du bëgguma tur turam xam nga di woo sama nijaay Cek xam nga waa Wuteng waa Grand Yoff waa Parcelles xam waa Patte d'Oie parce que lépp milieu Grand Médine bi la xam nga di leen sant tam mhm. te di wax ne seen Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang am jàkkaarloo Cheikh Tidiane Niang. Cheikh am nga problème bu dee bëre dóor da ngay ñëw ma duuma la daan la bu dee si mbapat bi la ma bëre ak ba jàngal la bëre si biir bëre man dongaloo maa wax lii. donne sa mort sa recule pas sama retour man dama koy marqué Baye Foss di nuyu waa Gambie yëpp nag sama fans bu nekk Gambie maa ni xaar sama open press bi nag le 27 la. incha allah sama open press le 27 la na ko gars yi préparé yëpp maa ngi siy sama rakk sama doom nday cer Thierre Piol bi yaa ngi ko yàlla defal jàmm di ko wax ni ndam li yàlla na la jik yàlla na si njiglaay yàlla nekk ubbeeku Grand Médine te bul xale nga l'avenir est devant mm-hmm. yoon bi métti na trop mais lu mu métti métti gëm naa ne ngay xuus jaar waa Grand Médine day ñëwaat si làmb avec force naturelle. avec forte force naturelle ah avec force naturelle boobu la Leewtoo ak mbër bi di ñëwaatee ah ñëw bu am doole dalal champion yëpp dalal ndaanaan yëpp comme ni ma ko defee tey jii damay kontaan ci moom ah loo mu nekk nit ku baax nit ku oyof macha allah di ko ñaanal jàmm ju bare bari combat bi ñu jëm fair play lañ ci bëgg 100 pour cent ngeen ñëw wone ambiance. wane aada a cosaan bëre bëre bi ah bañ fa nekk di layam layam bi yow gën a gën a xam vite fait bien fait ñu def suñu parce que ñu reporter dañuy yàqam. duñu ah, man mosuma yàq làmb duñu su fekkee ñi may bëreel dinañ bëre làmb du am 30 secondes non bu la ñi may bëreel Cheikh Tidiane ñaa ngay bëreel ne Cheikh Tidiane dina bëre mais bu ne ñi may bëreel yow nit ñi mën nañ ñeneen mais suñu bëre ak Ndongo day mel ni comme Sega ñoom ay ay tapé lañu képp kuy soo morom si làmb du ma morom mun nañ bëri ñeen nag di di balbaloo mais buñ ñu taxaw ak Ndongo Lo lay mhm. mel ni comme Séga seen bëri da ni de Ndongo Lo Ndongo Lo xale bi loolu yéen a ngi koy dégg kontaanee ko bu baax a baax kontaanee mafia ma fekk ñëpp leen bëgg di leen ziar waa Grand Médine cat ba caran waa parcelle mais damay bëgg sama équipe bi ah yéen a ngi ci bi depuis soobale mais damay kontaan ci bu baax ah mes jumeaux préférés Mansour Fall Bilal kontaan ci yéen ah, sama chauffeur moom moo maaree bëgg ci moom waaye nag mention spéciale a jiili Kébé sama magu bopp boobu dama koy bégee bu baax a baax noonu lay def jox leen dig daje ëllëg ci Leewtoo TV ak beneen champion ci beneen koñ incha allah jaajëf. combat lu mu si bañul man bañuma ko ci na xam loolu bu baax loolu boo ñaa wax loolu nee na boo ñaa bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaa ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha Tine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp Fodé te incha ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni kom bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war du sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na soufflé nga xam ne du sedd. te fu ma maa koy xaar pare naa ci lépp. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man.